jigen ñi amul karaw wala sen karaw di dag wala sen karaw yara wala sen karaw tëw bari wala sen karaw sax xeyna sekk na amna lépp waye dafa ñagas liisul acide béhénique bi ci nek wala docosanoïde bi da dafay stimuler fay labali fibre carpière bi nga xamni catu bopp ba ca pointe ba fa karaw ga da saxee daf koy nooyal dundal ko bëril ko sakkanal ko waaye itam tax ba du wadd di def ay chute cheveux ci gàttal acide béhénique boobu dafay tax nit ki karawam gën a yokk ni koy utiliser ni ñu koy utiliser moom huile la am na beneen technique nag buñ koy xam de bis ñoo wax may wax naan ma diw ci composition diw. Mhm. ci may nit ci may nit karaw xam-xam huile bi mhm. ngay utiliser jël acide bi ci même ki nga xam ni karaw gu bop bi da def ay crasse mhm. wala def ay utiliser huile bi vraiment. mënoon naa la fi lu mat juróom-ñaari xeetu huile yoo xam ne benn bu ci ne dafa baax ci fibre capillaire bi moom kon huile am ci wàllu karaw daf ko mën en même temps itam su fekkee nag jële nga ca huile ba <laughs> yóbbu ko ca nga dëbbu ko léegi dama defar diw bi mhm. defar ci bopp bi ba jigéen ji am karaw léegi nag dama koy dëbb def ko pëndax xam nga lu ma ciy faj wala lu ma ciy jublu su ma ko defee pëndax damay amaat acide béhénique bi am na leneen njariñ waaye du ma ci dugg damay am acide damay am saponine ak acide arginine ci biir moo tax garab yi bi nga dëbb bi nga def diw ak bi nga togg wala bi nga nëbal la muy faj bokkul c'est très important li nga nëbal mhm. leneen nga cay faj mu décomposé décomposition bu ak ensimi mu am lu mu indi li nga def diw leneen lay jur su duggee ci yaram bi yaram bi synthétiser ko ci leneen léegi nag su ma ko dëbbee man dëbb naa doomu bigeloo bosaa mhm. uul mhm. def naa ko poudre ki nga xam ne dafa am problème mu Euh, nga xam ni moom si njëkk. Mhm. ki xam dafa am problème mu ngóora. Mhm. garab bi baax na si ndax dafa am saponin. saponin mooy lan baatu grec la mooy sapona mooy saabu mooy savon moom dafay raxas bët yi moo tax day leeral bët raxas organu biir yaram bi mais veso yi deret ji di jaarit mu waaye ko ba mu set. léegi nag saponine bi ci nekk bu nettoyé vaisseau yi acide arginine bi fekk ko fële nga xam ni moom bu duggee ci yaram dafay am euh, NO bi maanaam oxyde nitrique oxyde nitrique bi ma la waxoon ci acide arginine ma ne la oxyde nitrique dafay yaatal dafay ibbi dafay gën a gaawal dibi sangee bi maanaam doole ji deret ji di jàllee ci tiwo bi ngir mën a dem ci sàkkër ku góor ki ngir mu am mën a am érection déglu ma bu baax saponine bi ci nekk nga xam ni moom dafay raxas. yaa ngi wax toujours ci kemb bi wala ul bi macc ko ci boppam. léegi gu ci ci ci kemb bi doom bi gren bi jiw bi su fekkee ni def nga ko pëndëx wax naa la boo ko defee diw bàyyi naa boobu. munoon naa dugg lu bari nag ci diw. Mhm. ma wax la ne boo ko defee puudar. nga def sa bu la neexee nga ut sa bool. Mhm. bu la neexee nga ut foo ko dugal. bula la neexee mbëq waaye am na nag technique d'utilisation. mode d'utilisation bu particulier moom. waaye damay ñëw rek ci soo ko defee puudar. Mhm. def ko pëndax nga xam ni saponine bi ci nekk dama ne la. gannaaw saponine moom. day raxas biir raxas xol raxas sidit yi raxas vaisseaux sanguins yi